Fallou Fallou Samb Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm ci teewaay bi euh, di am mbégte nag euh, ci euh, fa seene waxtaan ak yow nga ni expert en sécurité nga expert bu ñu ko waxee mooy jaar-jaar ah mm. maanaam ku jàng ba mokkal mën a jàngale maanaam kàngam effectivement mën nga nu wax un ci wàllu sécurité ci lan moo la ci def expert waaw sécurité li ma ci expert mooy bi nga xamante ni bi ma daan def arts yàgg na daan compétir benn euh, club bu ñuy wax Dakar Université Club ma daan def jamono yooyu judo bi ma arrêté les compétitions pratiquement ci laa dem inscrire dem jàngi protection rapprochée. Mhm. donc bi moo ci amee at nag ci laa commencé def ay études à l'Institut Thalès euh, comme expert en sécurité défense internationale am na aussi diplôme en protocole et diplomatie. Euh, def aussi sécurité électronique donc euh, pratiquement bi ma mujjee def mooy DSA diplôme euh, stratégique approfondi bi nga xam ni dafa boole quatre matières muy maintien de la paix géosécurité défense ak gestion des risques mm-hmm. boobu laa mujjee def ci sécurité moo mm-hmm. après nag ci laa amee titre d' ci lañ moo ko décerné mm-hmm. bon pratiquement am na ay xale yu bëri yu ne ci dëkk bi ci dëkk bi fii di def sécurité am na ci ñu nga xam ne sax dañuy yore ay autorité yàlla def na jaar nañu suñu sam samay loxo. Mhm. donc di hier rek maa ngi woon à campement ngi xoox am waa Delta Force Sécurité ñu ma doon defal formation stage. ñoom aussi dañ leen defal mise en niveau ñi nga xam ne aussi defaguñu laa sécurité dañ leen di jël di leen yóbbu ci yenn yi te xamuñu risques yi xamuñu législation ñoom aussi ñu leen doon defal préformation pour waajal leen formation. Mm-hmm. bon yàgg na ça fait plus de presque bientôt dix ans ñoo ngi ci milieu bi di ci gëstu di ci joxe aussi di ci xam xamle aussi. Mm-hmm. voilà te du ñu noppee jàng na comme li ñuy wax sécurité dañu ni sécurité géej la amul kenn koo xam ni ci àdduna muy général bi. di colonel bi ak ku mën a doon di officier bi di sous-officier amul kenn ku la mën a wax ni man jàng naa sécurité jeexal naa ko mën naa ko pare naa ci mhm. parce que sécurité dañu ni géej la da naan ba doyal rek jox sa morom mu naan mhm. mais sécurité du mës a jeex la sécurité est tellement vaste dafa yaatu ah, yaatu boobu mu yaatu est-ce que nekkul ni moo tax ku jug dugg ci parce que des fois da ngay gis gars yoo xam ne mhm. dañuy wóolu seen doole rek euh, ñu denk leen kaaraange ab kilifa est-ce que noonu la war a demee. déedéet warul demee noonu parce que jàpp naa ne képp ko xam ne da ngay engagé agent de sécurité d'abord dans un premier temps war nga ko laaj CVM nga laaj xool jaar-jaaram bu la joxee CVM ba noppi nga am ci ay gëstu xool ndax CV bi lim la defal. ndax kii li mu la bindal fa la jaar wala jaar fa parce que lépp day am ci Sénégal dangay dégg ñun la kii dafa falsifier CVM ñun la kii def na formation bi alors ko deful formation bi gis nañ fa aussi comme ni muy amee ci na faux médecin faux infirmier faux colonel faux douanier ñoo xam ne dañuy def e, dañuy def usurpation de fonction fo usage de faux donc képp koo xam da nga nekk autorité balaa ngay jël kenn muy ger sa kaaraange mu nekk un agent de protection rapproché war nga xool ndax moom mi am na formation bu baax ndax moom bu mu amee formation bu baax est-ce que am na expérience professionnelle bi kon ni ñu ciy duggee ni ku nekk ku nekk jël ku la neex jël ku la neex mu lay jëral sa kaaraange déjà boo ko defee yaa ngi exposé parce que un agent de sécurité c'est un assistant dans tous les domaines parce que mm-hmm. tey ñun par exemple suñu métier am na loo xam bu ñu ko doon xam di ko wax di ko wax ci plateau yi Sénégal day tàkk kon da ngay am droit de réserve parce que da ngay nekk ak autorité léppam yaa koy xam da ngay nekk koo xamante ni da ngay discret da ngay sori lu bëri du la neex ngay wax loo neex ngay def du fu la neex ngay toog et puis da ngay xam li gën a am solo da ngay jàng li gën a am solo muy la législation li nga xam ne moom la la yoon may nga war a doxale ak sa VIP moom la la yoon may nga war a doxale ak doomu aadama man bi nga xam ni sax da ngay euh, da ngay jóg pour dal ci sama kaw VIP comme tey nekk sama VIP may ànd ak yow sa kaaraange kon kooku tey bu nit ñëwoon di daal ci kawam sax am na nu ma yoon ni noonu laa war a taxawee parce que sécurité lan la la protection rapprochée mooy koo xam ni euh, dafay dox nga war a euh, nga ñu koy attaqué nga war a gérer sa sécurité maanaam yow sa mission xam nga lan la mooy noo koy extirper noo koy jëlee rek mu dem ba nga xam ni. Mm. tooxi doona bi wala malfaiteur bi wala ku mu mën a doon. moom mu bañ ko attan maanaam yow euh, euh, yor karange nit ngay da ngay fexe ba musiba gii ñëw di dalu ci kaaw effectivement ah, léegi nag loolu moo ñuy dugal ci waxtaan balaa may jox sax mhm. question bu yomb la mhm. te man sama ngëm-ngëm la mhm. d'abord man am naa sama réponse bopp mais amul solo ci ñi seetaan effectivement Ousmane Sonko est-ce que am na sécurité parce que à deux reprises te sax du à deux reprises am na fii ci tournée yi mu doon def ci nemmeeku tour mm-hmm. am na ci le saise passé mm-hmm. li 16 février amaat na le 16 mars mm-hmm. mooy saa suñ ko bëggee ne coppet jël yóbbu yóbbu ko te pourtant dañ naan am na ay nit yu yor kaaraangeem est-ce que loolu ku am sécurité lu mel noonu dina ko dal di ko dalaat d'accord xam nga question bu am solo la yaakaar naa ñu bëri laaj nit ma ci ay question te dinaa sawar ci répondre te wax naa ci waxati ci même j'ai parlé avec koo xam ni ku ko la wax naa ko li ma ca xalaat te loolu aussi du loo xam ne secret te mën naa ko waxaat mën naa ci tontu bu leer président Ousmane Sonko amul sécurité. waaw amul sécurité. kooku ça n'engage lu moi que amul sécurité. parce que bu fekkoon ni par exemple dafa am ci réew mi ñoo xam dañu ko bëgg faat wala bëgg ko atteindre ci foule boobu rek mën lañu ko bëgg a def mën nañu ko ko def su amoon un mercenaire ñoo xam ni parce que sont sont partout dans le monde ñoo xam boo leen fayee defal ma li ñu defal la ko sale boulot boo ñu defal la ko d' abord pour nga am sécurité bu baax en tant que homme politique bu mel ni président Ousmane Sonko da ngay am d' abord protocole bu baax d' ailleurs man je suis expert en protocole et diplomatie. tey par exemple tey autorité am balaa muy génn da nga war a xool yoon bi fa mu war a dem donte ne nemmee tour lay def donte dafay jaala ji donte dafay dem seeti benn xalif généraux donte dafay dem seeti église bi donte dafa ku mën a seeti bu donte day ñëw Walfadjri am na ñoo xam ne ñoo war a jiitu xool baliser terrain bi xool réellement mhm. yan condition la fi war a ñëwee ak yan condition fu mu war a jaar ak fu mu warul jaar du question ni président de la république wala ministre rek mooy am protocole mais point de vue de son statut bu ñuy wax chef de l'opposition peut-être mën nañ ni mooy chef de l'opposition parce que moo xaw a tenir tête peut-être état bi bon fépp foo xam ne dafa war a jaar moom dafa am d' abord protocole boo xam ne mooy diriger mooy xool fi mu war a jaar ak fi nga xam ni loolu la war a def d' abord bu loolu pare nag mu am des gens bien formés bien instruits parce que gis naa ñetti situation yu am je me rappelle très bien lorsque euh, ñu euh, fois ñu koy jëkk ñu koy extirper je me dis que le président Ousmane Sonko et les force de l'ordre dafa am déjà loo xam dafa war a ko dafa commencé am seen diggante te loolu warul am seen diggante man su ma bokkoon ci sécurité am wala ma jege ci sécurité am policier du ko laal gendarmerie du ko laal mais du ma xëccoog police du ma xëccoog gendarmerie man su ma nekkoon sécurité Ousmane Sonko man ma nekk chef de sécurité am man li ma koy demander am na fu ñu toll foo xam ne moom man moo may fay mooy sama par exemple mooy sama lépp moo may fay moo may jox salaire moo may jox fu may moo jox fanaan mais am na fu ñu toll sur le terrain man li ma ko wax lay def parce que loolu mooy logique mm-hmm. parce que je me rappelle très bien lors amoon na benn meeting bu amoon euh, li ma lay wax ne au temps de Senghor au temps de Abdou Diouf benn meeting bu amoon à à Louga à 19 heures le feu Bruno Diatta dafa ñëw ba ci président de la République ni ko à partir de 19 heures sa sécurité du ma ko mën a du ma ko mën a assurer nañu tass li ñu préparer ñu dem mais ça c'est le protocole parce que protocole mooy commandé Euh, mooy commander euh, euh, comment dirais la la sécurité parce que ñoo leen wax def leen nii de parce que dañuy wax naan le proto le protocole est là Bruno da daan wax naan le protocole ressemble à une tombe il voit tout mais il ne dit rien mais bu waree wax ak autorité bi day wax ak autorité bi donc am na fu muy toll ces agents de sécurité ñoo ko naan ah lii wala parce que tey laaj nañ ma ko est-ce que c'est les agents de protection rapprochés ñi ànd ak Sonko est-ce que am nañu droit xeex ak la police ou bien la gendarmerie. amuñu ci droit te mënuñu ko donte sax am nañu ci droit mënuñu ko parce que force de défense et de sécurité yor bien armés sont protégés yor genre arme bu nekk sécurité d'une personne ou doon autorité publique mënu leen mënu leen contrecarrer c'est pas possible donc je me dis que mun nañ xoolaat sa sécurité man wax naa ko wax dinaa ko waxaat na xoolaat sa sécurité noo xoolaat aussi son protocole il n'est pas dit que nit ki sa xarit la c'est parce a def chef de protocole protocole da koy jàng il n'est pas dit que kii sama homme de confiance la kii sama mbokk la am na ñu koy def kenn kii sama cousin la il gère sécurité mais est-ce que def na sécurité dans le fond. waaw ah, ça. voilà euh, jërëjëf euh, allah waxtaane am na solo xam nga Fallou mi nag euh, tax dinaa wàññi. Mm-hmm. parce que Fallou mi yaayam. baax la ku baax la grand yof macha allah. <laughs> Eh, ak euh, grand ba maa ngi koy nuyu. Mhm. fa ñëw fan yii sax. waaw incha allah ma fa bu soobee yàlla. incha allah parce maire bi il faut ma ñëw seet si ko. effectivement maire la boo xamante ne bi ñuy dem. nekkutoon fa lañ waroon a. Euh, kiiwee kiiwee waaye bañ ñëwee après mujj gi foofu sax lañuy ñuy mujj di daal mu nekk loo xamante ni bi lu mhm. extraordinaire mais Fallou c'est que man bu ma ñëwee ci euh, mbirum sécurité mhm. est-ce que tamit xam nga politicien politi politique yow jaar nga ci parti politique xam nga parti politique effectivement est-ce que tamit parfois ñoom politique yi bëgguñu ñoo ko bëgg doxalee nii nga xamante ni bii noonu la yëf yi deme est-ce que lépp tamit boo ko bëggee teg ci photo sécurité bi mhm. est-ce que parfois tamit mhm. parce que depuis quelque temps am na tamit euh, malgré que ni yëf yi metti na trop mhm. naqari na sénégalais yi waaye nag beneen sympathie juddu na tamit ci xolu sénégalais yi effectivement est-ce que tamit ñoom it euh, carrément euh, bëggee ñu ni mbir yi. absolument ñoom ñoo ko bëggee noonu. Mm. pour vous répondre la ci sa question. Mm. je me rappelle en 2003 lorsque le président Idrissa Seck a été convoqué par le commissaire Assane Ndoye. Mm-hmm. bi mu ko woowee. Mm-hmm. ni ko jaaral fii. mais dafa def marche bleue jaar fu ko neex. la lam ca jublu woon mooy lan. Mhm. mooy prêter l'attention des de waaw que ni les sénégalais kaay leen ñu ngi may jàpp ñu ngi may def lii kaay leen dañ ma bëgg a intimider c'était en 2003 loolu. waaw bi mu ñëwee commissaire bi ni voilà vraiment moom bi ñu ngi ko woo mu jaar fii jaar fi jaar Sandaga au lieu mu ñëw heure jaar fi jaar fa parce que. Mhm. stratégie politique la. waaw donc Ousmane président Ousmane Sonko aussi noonu la. Mhm. stratégie politique la moom am na raison jaar fu ko neex parce que tey jii bu la joxee convocation il n'est danga dañu lay war a jaarloo fu la neex. Hmm. yaay xool fu la jaar bu la neexee nga dem Louga dem Tamba dem ko jaar campement jaar njoos <laughs> Ndiosmone. Ah, jaar Jiwaalo yaa ngi dëgg. mais l' essentiel li ci gën a am solo mooy bu ñu la nee neuf heures et demi midi pile loolu mooy li nga xam ne moo am solo mais aussi c' est de bonne guerre parce que ñoom ñoom ñëpp ay politiciens lañu kenn ku ci nekk da xool yoon bi nga jaar mën a jaar pour mën a prêter l' attention des sénégalais mm-hmm. kaay leen ñu ngi may jàpp kaay leen kii génn leen comme ça comme ça mais am na nag yoo xam yu ci regrettable yoo xam ne am na ci yooyu rek peut être moo ci xaw a kii mm-hmm. parce que nga xam ne bu tamit noonu la ñuy doxalee mm-hmm. Mhm. parce que ñoo xamante ni bi désarmé wu yoruñu arme defuñu dara. Mhm. gis nañ benn euh, kii Ousmane Sonko boo xam ne tiire nañ ko bal. Mhm. Euh, ci tànk. n'est-ce pas. boo nga xamante ni bi mi ngi expliqué doon nañ ko bal blanc xaw ma lañ ko def. gaañ ci tànk. léegi ce que tamit yu noonu nga xamante ni bi jar na ko ñoo xamante ni bi buuxante wuñu xeexuñu. est-ce lu mel noonu tamit war na xam nga xam nga. dafa am ci xam nga bu ñuy wax ci droit ci yoon. Mm-hmm. dafa am lu ñuy wax article trois cent quinze du code de procédure pénale. Mm-hmm. dafa am lu mu wax. lu mu parce que dafa ni xam nga les forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. ñoom c' est la sécurité publique. waaw à dire am na fu leen lu leen yoon may am na aussi lu leen yoon protégé. léegi ñi nga xam ne mooy la sécurité de de Ousmane Sonko ñooñu tey. yoon prévoir lu leen dara parce que fii la sécurité rapprochée privée c'est pas encore autorisé amaguñ benn statut mhm. donc ça c'est un problème parce que ça fait plus de cinq ans ma ciy wax parce que boo demee en France pour nga nekk pour nga bokk service de protection des hautes personnalités nga xam ne ñooy garder ministre garder député garder le président de l'Assemblée nationale ñooy nekk ak les sous-préfets les préfets mhm. non sañoo ñëw rek sol sa kagul sol sa yére ñi mhm. garder benn autorité te jox la sa carte autorisé ko defoo formation et dans les dispositifs bu fekkee dispositif bi dañu nekk cent personnes. mu am kenn koo xam deful la protection rapprochée kooku mën na jaxase dispositif bi. Hmm, parce que gis nga boo xoolee Sonko ak les gardes ak ñi nga xam ne ñooy la sécurité. Hmm. gis nga des fois altercation yi ñuy am. te dans un dispositif dafa am lu ñu naan l' officier de commandement toujours mooy ki nga xam ne mooy moo gën a jege président Sonko nga xam ne kooku mooy officier xaw ma am na ko wala amu ko. am na am na kenn koo ci xam. Ah, bon miinante wuñu parce que mm. moo ko sama grand frère ñoo bokkoon di liggéey moomoo xam naa ko baax xëy na peut être miinante wuñu mm. mais dafa am koo xam ne mooy lu ñuy wax OC officier de commandement kooku toujours. Mm-hmm. moom moo war di wax ak ne mooy l' autorité mooy dugg moo ko naan ah c' est ça qu' il faudrait mm-hmm. na lu leen yoon may par exemple dañu ni. ñoom bu fekkee euh, euh, force de l'ordre yi dañuy article trois trois cent quinze dafa ni les forces de l'ordre bu fekkee dañuy jàkkaarloo foule bi nga xam dafa dafa dañu calme foule bu calme mm-hmm. bon am na foo xam du ñu réagir am bu ñu wax foule bu foule boo xam dafa hostile excité foule boo xam dafa hostile excité ñoom bu ñu yeggee ci loolu yoon am na lu mu leen may mm-hmm. yoon may na leen ñoom ñu bu ñu gisee ni lii dafa dafa nekk une menace trouble à l'ordre public wala dara. wala mu nekk euh, comment dirais-je mën nañu def le rétablissement de l'ordre public foofu la leen yoon maye mooy article trois cent quinze. c'est-à-dire yoon may ne la ñu chargé. bu mm-hmm. fekkee ne. ñu fekk ci oto seppi ko jël yóbbu yoon loolu yoon da ko may. waaw loolu euh, loolu bon xam nga ba tey ñoom xaj na les euh, au service militaire. Mm-hmm. c'est les commandements c'est-à-dire les commandements yu cest à ñoom. ak nuñ ko mën di defee le rétablissement de l'ordre public yoon may na leen ko ak nu ñu ko mën a defee waaye nag jàpp bi extirpé ko ordre boobu du dem ba créer le désordre. parce que li fi am yëpp. waaw ordre bu dee lañ ci jubloon désordre la mujj jur. parce que tey jii ñu ngi naan. pompe nañ ko fii. ñi naan xëpp nañ ko lii. alors que tey ji bu doon dañ ko bàyyi ci otoom rek mu dem. Mm-hmm. loolu lépp du ci am. léegi yow Fall maa ngi la doon dégg tamit yaa ngi doon expliqué comme ni Guy Marius Sagna téewee Sonko sent rek. effectivement loolu ci wàllu sécurité ni ko Guy Marius Sagna téye. waaw loolu gii wax naa ko encore gii xaj na lu lem ca jublu. mooy lu baax. parce que dégg naa amu ci droit déedéet. non non gii li mu def ceinturé ko. li mu def ceinturé ko. gis nga dañu ni ñun ay civil lañu. c'est vrai c'est vrai duñu ay policier duñu ay gendarme ay civil lañu. Mm-hmm. mais dañu ni dañu ni dañu ni dañu ni dañu ni un civil n'est pas investi d'une mission de la police ou de la gendarmerie. Mm. maanaam civil am na ci liggéey boo xam mën na ko def moom nag la mu ko def xaj na. da doon jublu soutenir Ousmane Sonko. waaw mais na mu ko jàppee noonu. saa soo jógoon léegi ma jàpp la nekk la ñaari minute ñetti minute. du mën dara ah. Omar Xataab jàpp mbagg mi di xëcc. bii di jàpp mbagg mi di xëcc. saa bu guddee dinañ la wutal kel dinañ la wutal xewar wala wala loolu. Mm. donc ça c' est vrai. loolu c' est un problème no tuutiwul. non mais kii mais gis nga gi gi. non gi tuutiwul non non non ceinture boobu. ni mu ko ceinturee noonu. ni mu ko ceinturee noonu xam nga lool lan la ko mbër di wax. parce que damay entraîner ay mbër des fois. Mhm. xam nga nu ko mbëri di wax dëbb col. dëbb dëbb col. jii dafa dëbb col Ousmane Sonko. Mhm. dëbb col maanaam dëbb col mooy da ngay jël sa loxo jaarale ci ginnaaw. takk ba mu dëgër. waaw boo ko takkee ba mu dëgër. léegi rein léegi faar yi danaan kaj da nga koy verrouiller. mais xaj na lu rafet man dama di que lu rafet la ci jublu. mais mais est-ce que tey yow débat bi nga dugg. est que nekkul déplacer le problème. waaw li li le problème mooy. Mhm. dafa ne dafa asthmatique. Mm-hmm. maanaam dafa am problème respiratoire. respiratoire mm-hmm. ñu ne. Mm-hmm. est foofu usage bombe lacrymogène. surtout que genre bombe lacrymogène yi gars di utiliser temps yi. beneen bi ci topp ñu ne ab pompe génn na fa. te pompe yooyu des fois mu wex xatt que exemple Guy Marius Sagna. nee bi ñu ko ko dóoree ah. plus de trente minutes am na problème mu presque vingt quatre heures. da doon am problème pour xool. franchement bu dee ne nag nit ku xiiboon. nga jël bombe est-ce que yoon maye na. Mhm. ñiy yor karange gi. Mhm. di jëfandikoo yu mel noonu ci mbooloo. ci mbooloo waaw sa dépend rek bu fekkee en fait ñoom dañuy dañ leen jox ay armes c'est pas pour ngeen jox leen ay armes mais bu ñu la joxee arme aussi du n'importe comment nga ko war a utiliser qu'on se dit la vérité. Mhm. du n'importe comment lañ ko war a utiliser. mën nga ko utiliser pour disperser une foule ñoo xam ne daf dañuy def euh, euh, menace une trouble à l'ordre public mais quant par exemple nga koy jël di ko ci biir oto. oto boobu mën na am asthmatique mën na am koo xam dafa am déjà insuffisance insuffisance respiratoire là ça dafay créer problème un asthmatique am na ñoo xam boo leen ko dóoree fa la ñuy jaaree faatu. waaw xam naa ne boobaa ils vont dire que voilà rey sax mm. waa ji dafa feebaroon. waaw Fallou xam naa ci une minute yi des rek. man damay laaj ndax chef de protocole. Mm. dafa am formation. Mm-hmm. wala lan. aussi ñi nga xamante ni ñooy ñooy garde rapproché yi. Mhm. am na formation. effectivement am na fi école. am na fi mais est-ce que ñoom ñoom ñi nga xamante ni dañoo robuste ak ñooñu rek. Mhm. ñoo war a nekk parce que booy xool. Mhm. Sonko ñi muy àndal ñëpp ñu robuste lañu. ñu kii lañ non mën nañu dal sa xel. d'accord waaw ah, ba tey yow yow amoo ko. <laughs> mais mais est-ce que loolu aussi gën na ndax ñi ko jege ñëpp. am nañu formation bu nu bu nu bu nu bu nu am wala dara. parce que loolu aussi day xool ci des fois bu bu bu ful amee. da ngay gis ni ñuy disperser. barki di keroog am na génnam bu mujj boo xamante ni gis naa mi ngi dox ci biir mbedd mi di dem mm-hmm. Mm-hmm. mais gis nga garde rapproché yi dañ doon xëccoonte mm-hmm. ñu naan ko demal ñi naan bul dem ñi naan takkal masque ñi naan bul takk masque loolu noonu aussi ci manque de sécurité la est-ce que ñooñu aussi jarul formation si dafa laaj formation ñi lay wër aussi xam nga ci bi ñuy commencé émission da nga ma laaj président Sonko am na sécurité man la amul sécurité. waa loolu nag laay laay laay dëggal noonu. di la loolu amul sécurité xëy na sécurité am sax xëy na dinañ ma mere mais dama wax rek. ah non non da ngay wax te yàlla tax je parle bon je parle en toute connaissance de cause quoi. d'après les analyses parce que quel soit. da wax te yàlla tax waaw quel que soit expert boo fi mën a euh, indi. nga ne ko analyse ma cette situation là dina ne carrément amul sécurité d'ailleurs il n'est pas dit rek da nga war am de gros biceps. Ah. yor dënn bu rëy ngande c'est parce que par force da war a nekk garde du na solo amul solo non ci la non non non ça fekkoon doo si mën dara parce que maa ngi la dégg tout à nga ni man bu ma fa fekkoon kenn du ko laal parce que yow ñoom sécurité bi yoruñu benn arme ñeem ñoo ñoo yor arme bi ñoo ngi jéem a di di di protéger léegi waaw c'est que man foofu war nañu xam nga man su fa fekkoon dama leen wax ni leen am na fu may toll. waaw man su ma nekkee su ma yoree sécurité président Ousmane Sonko am na fu may toll. man maa koy commandé moom moom du ma commandé. waaw mais est-ce que defuñu ko ñoom itam. man ah, pourquoi man la ah, man maa koy commandé ah. non loolu ça c'est des. xanaa mooy bul génn. ça c'est boo ko nee bul génn. wala yi toj gars yi toj vitre non no non c'est-à-dire bi nga yow xam nga boo ob bi nga waxee ne da ngay observer mbedd xool. ba xam waaw xoolee gis ne takk der yaa ngi fépp. waaw xam nga ni ñii la xewoon la ñuy defaat. waaw waaw léegi bu boobaa kañ pour man agent sécurité dëgg. Hmm. mooy tëj buntu bi ngeen tëdd. gaa yi gaa gëj tëj buntu bi mu bañ a génn këram mu bañ a dem. ah loolu loolu a def. waaw parce xam nga procès la xam nga procès la. procès la dañ ko convoqué. procès la ñu tontu foofu ñu tëj voilà déjà ñooñu dañu war a am formation il n'est pas dit rek cest à euh, toog nga amoo euh, toog nga amoo combat wala mbër nga woon wala karateka nga wala jël toll nga noonu ne da nga war a ne c'est parce que protection rapprochée waaw protection rapprochée di nga jàng communication di nga jàng di nga jàng communication di nga jàng législation di nga jàng législation di nga jàng secourisme mm. di nga def police scientifique mm. yooyu yëpp di nga ko jàng est-ce que ñooñu jàng nañ ko question boobu laay posé mais man soo gisee man la su ma fa nekkoon xaj na loolu du am man je vais parler avec l'autorité ki ma intéressé mooy dama ko naan fii sa kaaraange xëccoog policiers yi arrangé wuñu mm-hmm. man en tant que ak arme interlocuteur boo xam ne tey jii comme sànq li nga wax. Ah, du Jibi Gueye Ndiaye. ko xam ne moo war di wax ak. kii non ji même Jibi Gueye Ndiaye des fois il dafay am. dafay am des fois il avec les avec les policiers. Ah. moom c'est un chef de protocole. donc am na nu mu war a waxee. même le protocole aussi dafa laaj formation. waaw loolu lay laaj nag man. si dafa laaj formation def na ko dem def na ko. <laughs> donc même moom dafa war a moom <laughs> même moom dafa war a dafa war a dafa war a dafa war a xoolaat aussi. non déggatul li parce que damay laaj que il n'est pas dit que parce que il n'est pas dit que moo ah, loolu moo ci nekk. <laughs> xam nga li ma la wax ne muy matière yëpp ngay jàng. soo paree nga def protection rap léegi nag dañu ni. en protection rapprochée. xam lu ñu wax ci protection rapprochée. dañu ni euh. force ak doole. waaw ngan ndawaay ci la nag xam lu ñu ci soxla. vingt cinq pour cent soixante quinze pour cent yi xam nga lan la. lépp science la technique. Mhm. Mm. voilà. mais ñi ànd ak président de la république gis nga ci ku toll nii ku ci toll nii Boy Niang 2. xoolal bëri noonu mu toll woon sax moom. damay laaj damay laaj non parce que tey parce tey parce tey. mais ñooñu dañoo yar fetal. non mais mais cest à mais non dañoo armé te buñ la bu am nañ sañ-sañ ñoom ñoo ma jox ma jox la ma ñoom waaw ak exerce ci li nga xam ma jox la ma jox la ma jox la ma jox la benn exemple dama la jox benn exemple damay jox benn exemple. Ah. saa bu nekkoon tey ministre tey. Ah. waa BIP wala waa GIGN ñoo koy garder. Mm. léegi waa BIP wala GIGN yooyu da nekk un policier am expérience. Mm. am ay diplôme ba noppi nga doo ko def concours doo ko dugg ci corps yooyu corps d'élite yooyu. Mm. kon nag. bu ñu amee wax nañ ci ba sonn. parce que y a une désordre totale. gëdd bi ngeen war a am du ngeen ko am comme exemple bi nga joxe ci France. waaw ah, foog ngeen structuré ko Omar di la di la gërëm bu baax a baax. di ànd ak moom ci lu bari ah. man moom pour être honnête kon pour man Sonko amul sécurité. loolu moom nan ma ko baal pour plusieurs raisons. parce bu dee ni yow yaa nga gis Idrissa Seck ak ñoom Vieux Sandiari Idi jotoon ci moom yombul woon. benn secret ah. ay man jaar naa ci man jaar naa ci biir kii de ah dañoo bokk. 2012 2012 ah, Ablaye Wade moo nekkoon kii dafa bokk mais ah, 2012. ah jarul da ngay béti exemple bi exemple joxe exemple laa joxe may ma béti. 2012 eh. ah, yaa ngi fàttali ko événement 2012 yi. mais toujours si yàlla commissaire aaroon na si avec ses éléments. toujours vieux Sandiari mooy wàcc oto bi wax ak les commissaires. nekk ci kanam nekk ci kanam. Ah, mais président yi a am na solo. non non saa kii mënul nekk expert ba pare nga bëgg ci ëpp xam-xam doo ko bàyyi mu ban expert lii dama koo xam nga naan ay kii mënut a expert lii may wax lu ma xam la loo wax ci waat da ne lan waat da ko jamono ñu bàyyi ko tàggoo ñu teg waaw donc waaw donc maa ngi maa ngi maa ngi sant bu baax di gërëm di leen gërëm aussi di wax ne je suis à votre disposition saa yu ngeen ma soxla muñ ci rajo bi ci télé bi ci site bi fu ngeen ma soxla rek incha allah dinaa ñëw xam ni bon Walfadjri moom sama kër la ça c'est mon grand frère ah, ah voilà waaw sama doom yaay la ah, man aussi maa ngi sant bu baax waaw incha allah vraiment merci beaucoup waaw incha allah jërëjëf Fallou Samb expert en sécurité ñu lay jaajëfal bu baax jërëjëf merci